géwél gu tedd gaa gi ne di dugg si si baas bi muy sang barxaamu Njaay yéen a ngi koy gis ne mu ànd ak convoi bi di ñëw euh, tey nee naa leen bis bi ku ko gis xam ni euh, bis bu rëy la si suñu si lislaam ndax sagu lislaam la sagu diine la sagu sagu lépp la moom sang barxaamu Njaay tey mu yeg si fii nii euh, di ngeen gis lu doy waar doy waar ndax yéen ngi koy gis ne muy dugg si ànd ak njabootam gi ànd ak taalibe yi ànd ak mbooloo mi di dugg si fii nga xam ne mooy caaxa cox yaaw fii nga xam ne mooy dëkk sang Barhama Ndiaye waajuram bu góor nekk fi waajuram bu jigéen ne fi tey di ngeen gis lu doy waar fii si 7TV ànd koog Moustapha Welekaan waaye ànd koog sama caméraman bi nga xam ne mooy Cheikh Sadibou ngeen gis tey wax dëgg yàlla muy liggéey liggéey bu am solo fi si caax coox dama leen bàyyi ak ambiance bi ba sang bi ñëw incha allah rabbi محمد يأمهم طه وعيسى وآله له كل وقت في رداية مجاله فتمصي النظر كالجليد تشظى ñoo nga fuñ la bëggee ma ne ko ñëw nga fuñ la bëggee suñ xol sedd na ci yow ba sey ci yow ba nga xam ne mosoo wuutee suñ benn jataay ndax mbëggeel giñ la bëgg te ànd ak yow mosu ñoo tàqale ko yow ci benn lax sax tey nag di jëmm ci feeñee dolli nga ñu mbëggeel ñu ngi yàlla ci sa teewaay bi waaye sang barxaam li bàyyi waxoon ne man taxaqaqa bi xaalatin lam yaxruj minha habiru sa xaal moo nekk dëgg jataay buñ mos a toog ba nga jël di wax ci Mouhamadul Mahi danañ la xool ngay waxee ci moom bëggeel gu weesu waaye nga am programme mu jógee koo Kawlax ne caa ko coof la jëm war laa ñëwal xam naa bi sedd la min alsheytaan arrajim bismillahi arrahman arrahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina muhammad nuurul ijaadi wal imdaadi wal istimdaadi nuurul kawni wa sirril wujuudi wa ala aalihi wa man tabi'ahum bi ihsaan ilaa yawmi diin ñu ngi sant yàlla bu baax di am mbégte ak kontante lool bi nga xamee ne ak Seydi Mouhamadul Ibrahima ibnu Seyxul Islam Alhaji Ibrahima Niass tey mu ngi fii toog ak ñun ci dëkk bu tagg bu ñu wax caaku cof yoor sari lii may fii may sama dëkk fii laa du fii laa yaroo fii laa màggee dama demoon Dakar di jaayantu ko jëndantu dëgga far sa papa mu yenoo ba ca kaw dor may suuf ne ma sanga baraam ma ne ma ma kaay ci ma yow man kon ni kot ma atal njëkk loolu war naa fu ne dem naa fu ne tàdd waaye Cheikh Ibrahim bi ma liwaatoon moom daf maa yéenoo ba asamaan bi nga mu ànd ak ma ci suuf la bay bind waa ji wax na ko léegi bii barrin wa bahrin xat baxal sumba daay yi wasal yow ma asuru fii hawaamu na jam jëma sami góor yeeg sami jigéen ñi sang yu mag yi ak sang yu ndaw yi maa ngi di indi nuyoo imaam Cheikh Tidiane Cissé ak mbir yooyu yëpp ak seen ñaan dana yàlla nangu ci li ñu dajale fii ci guddi gi ci ay mbóot ak ci maanaam ko yàlla dëggal ci dëgg dëgg lu nekk dal na fi ci toogaay bi waaye ku mën a yëngal nit kooku moom daal lay bal na ko dama wax ak xool yi ndax bu waxee ñëpp dégg euh, wax na ma ne boo ñëwutoon du baax waaye bu ma ñëwutoon du baax si man mbaar mi ak taar ak xale yi fi dee ñii fii lañ waaye ñii itam ñu ngi dëkk ci biti dëkk nga dajale fii ñu yéen ñii ñëpp ci fii ci caaxu caaxu caaxu Cofior muy dëkk bu sori capital yi sori Kaolack sori Dakar sori Saint-Louis yëpp nga indi leen dajale leen fii loolu boo àndutoon ak kër Madoum Fatick. wax amutoona jébbal naa sama bopp yàlla ba daal di seet ci man ci yàlla rek lay yëngatu te yàlla moo nekk fu nekk te yàlla moo ne ñëpp di si te yàlla rek moo eew oonu wuyu ñaari yëf moom la yàlla may yónent yi ak jullit ñëpp ñaari yëf rek benn bi mooy uskuru nii may naa leen ngeen tudd uskuru nii beneen bi mooy uddoo wu ñu sëñ bi dox ñaari baat yooyu mooy yëpp képp koo yaa ngi mun a dajale nit ñi ala zikrillahi tabaraka wa taala kooku nekk tu fa yàlla moo fa que yàlla boppam ci boppam ci la may jaamam mu mun a dox ci xol yi waaw beneen bi mooy uddoo wu ñu sëñ bi dox jotaay jotaayu zikr wa daawa moo fi dajale ñun ñëpp zikrullahi tabaraka wa taala wa lillahi tabaraka wa taala parce moo xam ne udroo ñu astajib la astajib la su ko defee booy ñaan yàlla yàlla ngay ñaan yàlla amul place. nekkul léeg-léeg nekkul makka nekkul ma war a yàlla mooy yàlla ñun fii ñu teew ko soxla yàlla ñu ngi toog ñu. di di ñu àggali fi ñu bëgg. di may li ñu bëgg jamono bu nekk nag dafa am ay dafa am góoram jamono bu nekk dafa am ay góoram maa ngi ci wet yi sang ma ma daal di ci sama xel ma fàttaliku jamono boo muy taxaw ci kanam tubaab yi ne leen du ngeen ci suñu xol yi suuf sangoo jël leen xale jàngoo jël leen ne suñu xol yi amul yooyu suñu xol yi ki si war a dugg yàlla rek mu tax wa baat boobu ci ci jëpp gépp ñàmbarte ci gépp ngóor a taxaw jàkkaarloog ñoom ne ah bu ngeen passé frontière bi fii la jeexee fii li ci des ñun la bu leen ci dugg seen yoon nag nga fa fekk góor boobu doon taxaw ci jamono boobu di dëgg dëgg ñoo ko ëpp doole maa waaye moo leen ëpp nag seen wujju jël moo ba mu ne leen yem leen fii dañu yem foofu mu taxaw maam Alaaji jamono bokk na ci góor yi jamono nga xam ne nee nañ la duñ bàyyi suñu réew di ko jeex réer réer di ko di ko lëndëmal dañ koy teg ci kaw leeru Seydina Rasulullah parce que moom rek moo leer ñu taxaw jàkkaarloo xeex xeex bu méttee métti ba bàyyi ñu Sénégal bu yi ñu xam Sénégal bu tedd yi comme li waa ji waxoon taxaw wax ko am na benn doom boo xam ne foo génn si moom tudd ko rek ñun sa mbokk lañ Sénégal bu tedd boobu góor yu mag yooyu ñoo ko xeexoon ba taxaw seen jamono loolu ñooñu la laajoon ñu mel noonu am dogu noonu xeex jàkkaarloo. dara tiitalu leen parce que ñoo gën a nekk kalimatullahi hiya al-ulya wa kalimatu kafaru sufla dañ koo wax gëm ko xam ko dund ko amal ko mu am ba jotaay bi ñu toog tey ñun ñii ñëpp la bu tax toll ak ñoom duñ ko am ñu teg ci buntu teg ci yoon boo xam ne natiija bi mooy ne yàlla dinañu satisfaire ci li ñuy bëgg ci suñu bopp yi danañ fi bàyyi peuple boo xam ne gëm yàlla la danañ fi bàyyi peuple yoo xam ne ëllëg bu taxaw jàkkaarloog jamono danañ taxaw jàkkaarloog jamono te ñu ci comme sang Njaay jàkkaarloog jamono boo xam ne jamono bu compliqué la jamono bu jafe la jamono boo xam ne laa fu rasulillah moo fu Cheikh ناجعنا موقف الشيخ ابراهيم رضي الله عنه من مقاومه هذا الضلال الذي يريد ان يغرق السنغال في ظلام دامس تلول بيكون نمو ها بيكون نمو waaye man ma ñàkk koo nangu amul problème parce que voilà mais ki koy bañ a nangu mooy kii taxaw di jëf di jëf di jëf ci xale yi di jëf ci mag yi di jëf ci jigéen yi di jëf ci góor gi ñu naan ko bongo bokk moo mën a soxla kooku moom la yàlla dénk ne duggal ci jamono ji te mu duggal ci jamono ji xeexal sa comme na ko sa maam xeexal mu duggal ci jamono ji xeexal jubbanti nga xam ne dëng na comme na ko say maam doon defee ci jamono ji xeex li nga xam ne moom nga war a xeex comme li waa wax léegi ci biir xam mu ne ba ngay dem yonent bi daal di doon mais boo jógee xeex itam yonent bi ngay am hmm? parce que moo nekk moo nekk xam nga baraaya naka ma nag yooyu yëpp xam-xam dañ koy dégg xam-xam boo ko dégg mokkal ko daf lay lor waaye boo ko déggee ba nga xam ne amul benn instance boo xam ne mën na la réer ci toppinu àddina muy toppinu bitim yeeg toppinu asamaan seeg euh, mi ngi sa loxo yëpp mi ngi sa loxo parce que xam-xam la boo xam seet taxaw ci buntu xam-xam bu dëggu te xam ko te ñeme amul soo xam-xam te àggali te nga yàlla toog fii yàlla toog sante fii ndax lan usjud waxtaan usjud waxtaan lu lu nekk lu nekk jege na ko ci moment boobu te sujjóot alal ardi maa rafa'tuhaa abadan maa ngi lekk waaye maa ngi sujjóot parce que gisuma dañ ne fu ma yëkkati jëm sama bopp jëmee ko gisuma ko ah donc maintenant sajidun wa lan arfa rasi alal ardi xatta alqa Allah tabaraka wa taala wa rabbi am na góor yooyu dañ ne fi ñu dund ñu ngi am ñu ngi nekk nit ah bu nekkee yàlla mu feeñal bu nekkee yàlla mu nekk feeñal bu yàlla feeñalee ñu lay gis taxaw dañ lay tuumaal lu nekk dañ lay waxtaan lu nekk la fekk buñ ko waxutoon du baax buñ la tumaatoon du baax ah buñ la xasutoon du baax buñ la waxutoon loo xam ne c'est tout à fait différence ak li ngay def buñ ko waxutoon ne loolu nga loolu du baax parce que kon yàlla dafa maan ñun la bàyyi ñun la yëkkati nii noonu lay bàyyi li ñuy dem ñu yëkkati ko ñu tuddee ñu lekk ñu naan te mbali mbali yooyu la lay bàyyi ñu foog ñu ngi seen dëgg da nga gis ay mbalit rek lañ def. ci jotaay boobu njëkk bi ak xale yu ndaw yi góor ak jigéen nga mënoon a dajale fu sori fii ci capital bi ndaw laa sirru baaxi nga xam ne mooy jottali lépp comme ni courant bi ñu jottali lamp yi yëpp ñu bëri loolu te dee te dellu courant rek moo leen di jottali السر الله لسيدي رحمه الشباب ويرحمه البنات ويرحمه الاطفال والكبار والى قلوب العلماء حتى يقول الله يا عبادي يا عبادي إني يا ملائكتي إني رضيت وقبلت فلانا في السماوات فأقبلوا فاقبلوهم وادعوا له yàlla bu ko defee ci suuf yàlla nar la nangu nar la xabul nar la dugaleel boo xam ne léegi da nga yow kenn fois ngay toog sama diggante yàlla ashkur yàlla jërëjëf maa ngi lay gërëm maa ngi lay sant maa ngi nangu say may waaye nangu naa itam coono yu ko boole pour ñu parce que boo ko boo ko nangu rek ak ko nangu ndax nangu ah ba bëggoo tàgg bëggoo tàgg faale woo saaga parce que daal euh, ah, voilà yooyu yëpp oh, ah, ah, loolu rek la ah di dëgg dëgg dëgg mooy muur boobu di bàyyi ko ci yow yàlla def ko ci sa làmmiñ yàlla def ko ci sa di gën a daw jëm si yow parce nit fu mu nàkkatu loolu nit fu mu nàkkatu loolu kan moo àttal nit pour làkk kan moo àttal nit pour làkk ko yaay ma bàyyi ma àttal ko dafa yéen ko topp rek làkk moom ci boppam àttal na boppam ndax léeg-léeg mu ne dafay xam ni bu boppam du ko def donc nit yàlla moo ko moo ko mun a làkk moo ko wax ne yaa ibaadiya ladina asrafu ala anfusihim laa taqnatuu min rahmatillah inna allaha yaghfiru zunuba jamii'an innahu huwa al-ghafuuru rahim wa aniibu dellu leen la dellu leen ilaa rabbikum sanga mu ne ilaa rabbikum waaye nag fii marxala bayna wa aniibu ilaa man yaquudukum ilaa rabbikum parce que kenn attan boppam pour yóbbu boppam parce que kenn attan kenn waaye nag am nay milliards yoo xam ne yàlla leen bind jox leen kattan jox leen doole jox leen nan nan min fadlihi wa karamihi hatta yakunu naasa ilayhi delloo jaam yàlla yi ci yàlla bëggloo jaam yàlla yi yàlla nanguloo jaam yàlla yi yàlla nanguloo itam ne yàlla moom nga xam ne ñun ñëpp moom lañ bëgg yàlla moom nga xam ne ñun ñëpp mooy suñu muccuwaay yàlla moom la ñu bëgg a àllak mais anam ñu ngi ci asamaan ñu ngi ci suuf ñu ngi ci danga hmm? mooy yonent wa ida saalaka ibaadi anni